ca saw village bi nga xamante ni mi ngi nekk ci commune bu Sessène askan wa dañuy jox juróom-ñett ba ci fukk ak ñaari kilomètres ngir faju e, ndax boo ko seetee tey ñun dañ doon dox ay kilomètres kilomètres di dox ay douze kilomètres ay huit kilomètres di dem Caajaay di dem Ngame di dem Njagañaaw pour faj yi wala fiisel jëf bi ne mel nag ab ak njeexintal bu baax a baax seen wér gi yaram loolee sax chef de bi mu ngi koy naqarlu bu baax a baax conséquences yu ma nekkoon mooy première conséquence yi mooy da ngay jëlee fii sa malade dem Caajaay par exemple mun nga mun nga dem ak charrette balaa ngay dem yeneen problème dikk ci biir ndax route bi neexut ba pare wax dëgg yàlla nga transporter malade bi nga xam ne danga koy yóbbu ba pare mu feebar ba pare fi nga koy jaarale aussi yoon bi neexut nga nga transporter en charrette aussi loolu risque bu rëy la aussi bu fekkente ne suñu ya yaay yi ak suñu soxna yi nga xam ne moo nekk en état de grossesse aussi loolu aussi mun nga dem boo indil ko beneen complication xam leen ni mel tax na maire dëkk ba nag gannaaw bi nga xam xamante ni lëkkaloo na ak PUDC daal di fay nar a def poste de santé boo xamante ne nii lépp lay am. waaw soo seetee ñaari poste de santé rek au moment où je yi nga xam ne ñoo nekk fonctionné ñaari poste de santé la. ñaata benn benn bi Sessène la nekk beneen bi nekk Ngame euh, am nañ dix neuf village ci se compose de douze village yoo xam ne moom dañuy ñëw moom la ñuy wax village simple. mais yeneen village yi village boo gis mot na trois village mais vous savez que les Sérères veulent vivre ensemble c'est pourquoi ils regroupent tous ces villages là en un seul village xeer bu njëkk bi rek bañ koy teg askan saw yëpp a génnoon ngir fekk li ne mel tax na sax ñi nga xam te ne ñoo war a tabax bi poste de santé xamal leen daal tabax ba du weesi fukki weer ak ñeent